gan gi mi ngeek ñun euh, monsieur Youssou Diallo moo jiite club Sénégal émergent nekk itam PCA bu Sonacos SA ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la monsieur Youssou jàlloo ci matinalu mi FM ah, jërëjëf soxna Fatou maa ngi lay man tamit di nuyu di la di eh, di nuyu di siyaare mboolem auditeur yu Rewmi FM di wax am naa kontaan trop hmm. dellu si ñoom ci matinal ñu lay ziare itam ci aj gi nga jógee euh, euh, kon jamono yële ñu weesu di ñaan yàlla mu nangul la nangul ñëpp alors ñu tàmbali euh, waxtaan wi ak askan wi nga xam ne fi mu ne moom njëgu dund gu yokk gi ëlëm na leen lool lottal itam ñu baree bari seen kuréel gi ban jàngat la def ci ci situation boobu njëg yi yokk rek jëm kaw waaw jërëjëf e, e, club Sénégal émergent moom kuréelu ay xeltukat lañu mhm. yoo xam ni et eh, dañu am ay xarala ci wàllu fànn yi nit di yëngatu yëpp yëpp mhm. muy économie muy sociale muy politique muy infrastructure muy technique muy technologie mhm. eh, maanaam mboolem xeetu xam-xam yi nga xam ne ñu ngi ciy yëngatu et pour di saytu mhm. et bi covid bi adooree eh, ci début deux mille vingt suñu ay jàngat wane woon na ni e covid bi ni mu demee non seulement dina jur ci àddina si li wax récession mooy économie yu nërmeelu waaye nag loolu aussi li jur mooy dana indi ay jafe-jafe ci wàllu dund ak wàllu mbay maanaam ñu koy wax euh, wàllu alimentation ak wàllu agriculture e aussi euh, loolu dana indi e bu récession amee maanaam li nga xam ni moom lañ doon produire maanaam liñ doon bay liñ doon def ci yeneen fànn économie yi dafay daanu te bu daanoo dund dina ñàkk et production dina wàññeeku te loolu mooy jur li ñuy wax inflation maanaam inflation boo ko bëggee wax ci économie mooy alal ji bare waaye nag euh, li ñuy jënde alal ji maanaam muy dund muy leneen ak leneen. Mm-hmm. mu wàññeeku. loolu mooy indi njëg di yokku hmm. rax ci dolli nag eh, bi loolu amee aussi gis nañ ni eh, transport dafa yokk ci wàllu international mbirum fret dafa yokk mbirum conteneur yi dafa yokk ndax ñàkk production boo xam ni dafa wàññeeku ci réew mi hmm. loolu nag ñëw daanu ci aussi mbirum jafe-jafe yi nga xam ne am na diggante Ukraine ak Russie loolu hmm. tax loolu ndax Ukraine ak Russie daanaka boo jëlee céréales yi ci àddina si daanaka daanaka genn wàll gi ci àddina si foofu lay jóge hmm. et rax ci dolli aussi ñaari réew yooyu dañu am solo lool ci wàllum gaz particulièrement russe yi ak ci wàllum pétrole te xam nga yooyu bu dooree di ñàkk dafay indi yenn njëg yi di yokk hmm. e leneen li nga xam ne nag moo ci rax mooy aussi dollar bi gis nañu ci zone bi nga xam ne lañ nekk muy CFA nga xam ne ci euro la aju et gis nañu aussi dollar bi yéeg na ba fi mu nekk nii benn dollar defe naa ne su ma juumul moo ëpp benn euro. Mhm. te loolu dafay indi réew mu mel ne Sénégal nga xam ni et dafay jënd petrole lu bare ak gaz ci bitim réew et loolu mu koy jënde dafay yokk aussi bor bi nga xam ni moom la ñu yoreel bitim réew et bor boo ko jëlee boo ko xaajee e daanaka ñeen fukk yu nekk et daanaka dañ ko libale en dollar donc nag yooyu yëpp presque saytu woon nañ ko wane daal nañu góor góorgóorlu te xam ni ñu ngi jëm situation boo xam ni euh, dana gën a jafe. kon lii am tey bettu leen yéen. Euh, déedéet déedéet suñu ay saytu wane woon nañ ko e te moo tax ñu waxoon d'ailleurs euh, résilience bi warul yem rek ci résilience maanaam alimentaire ak résilience pharmaceutique sanitaire ak alimentaire waaye war na dem ci wàllu résilience économique. et financière voilà. alors euh, est-ce que état bu Sénégal euh, ba ngeen xalaatee lii ñu njortu ne jébbal ngeen leen ko ndax club Sénégal émergent dañuy dégg lu bari bari ngeen ne yéen a ngi xelal euh, kilifa yi réew mi ci ci fànn yu bari est-ce que waxoon ngeen leen lii ba ngeen leen ko waxee itam ndax jël nañu ci ay euh, matukaay ay mesure yoo xam ne dana tax xëy na yéen wi mën a oyof ci askan wi. waaw kooku yaakaar nañ dégg nañ ko parce que comme ni nga ko waxee club Sénégal émergent kuréel boo xam ne réew mi moo ko war moo ko tax jóg et particulièrement suqalikoom ci wàllu koom-koom ñu koy wax euh, plan Sénégal émergent e bu ñu defee njàngat yu mel noonu ki ñu koy jëkk yónnee mooy réew euh, njiitu réew mi muy président Macky Sall hmm. gis nañ ne aussi bi mu defaree li ñuy wax le PAP 2A muy programme boobu nga xam ni moom lañu defar nii mooy programme ajusté et accéléré bu économie bi nga xam ni dafa nekk beneen jàngat ci euh, plan Sénégal émergent ci bi Covid amee loolu yëpp def nañ ko parce que premier point bi ñu def ci PAP PAP 2A. mooy fexe ba Sénégal nekk dëkk boo xam ni dëkk bu résilient la. Mm-hmm. maanaam yokk résilience réew mi ci wàllu santé ci wàllu pharmacie ci wàllu alimentation mais surtout ci wàllu koom-koom loolu nag sukkandiku ci mbay li ñuy bay fii ci li ñuy dundee ñu koy bay ci réew mi di ko transformer ci réew mi mais aussi ñu gën a dëgëral li ñuy wax industrialisation parce que réew résilience su réew maanaam li tax muy choc yi bu ñëw mu mën ko di supporter mm-hmm. réew moomu dafa war nekk réew boo xam ni li nga xam ne moom lay bay ak li muy jëfandikoo moo am industrie yoo xam mm-hmm. ñoom ñoo koy transport transformer ñoom ñoo koy ñoo koy kii parce que base industrielle mooy di gën dëgër ci wàllu wàllu wàllu économie beneen bi mooy aussi gis nañ ni réew mi gën na am taxawaay ci wàllu li ñuy wax secteur informel maanaam lu mel na commerce wala lu mel na artisanat mm -hmm. mais aussi ci wàllu euh, le le le de la vie mm. maanaam jafe-jafe yi nga xam ni juddu na ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la Covid indi jafe-jafe yooyu muy lan muy ay payoor muy ay retraite muy ay revenu yoo xam ni ci néew ji doole ji mhm. dafay wàññeeku ndax njëg yi yokk gis nañ ni réew mi tey ji eh, président de la république ak gouvernement am dugal nañu lu jege mille milliards ci yokk ay payoor ci yokk ay revenu ci yokk ay retraite mhm. kooku aussi nekk na beneen politique boo xam ni macha allah gouvernement bi et eh, suivre nañ ci et eh, du nag xëy na lépp li ñu recommandé woon moom la ñu jëfe waaye nag li ci ëpp daanaka jëfe nañ ko dafa am yoo xam ne nag dafay tolloog eh, fi réew mi toll ci wàllu économie nga xam ni du tey suba nga koy soppi waaye nag il faut mu am diir tuuti pour ñu mën ko soppi mais alhamdulilahi rabbil alamin euh, président daal dégg na un peu yi ñu ko defoon comme recommandation mm-hmm. et ñu ngi ciy sant waaw alors ñu gis ne itam nag euh, am na ba tey ay jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci marché bi mooy euh, pour que euh, ñu réguler ko ba nga xam ne xëy na ñenn ñi duñu ëppal ndax dañuy gis benn quartier rek ñetti njëkk ñeel benn prix di fa nekk loolu tamit wane ne état xëy na am na fu mu soxee bu ñu jëlee ay mesures fee itam am na xëy na foo xam ne la leen fa waroon ni taxawaay defee wuñ ko loolu noo ko gisee. waaw loolu effectivement loolu am na am na dëgg la. Eh, réew mu Sénégal dafa nekk réew boo xam ne xam nga eh, wàllu liberté la ci wàllu économie maanaam njëg yi eh, li ci ëpp mooy daanaka ci marché bi lañ koy jàppe hmm. te am na lenn ci njëg lu mel na essence lu mel na carburant lu mel na énergie hmm. lu mel na ceeb lu mel na blé nga xam ne mooy dugg ci li ñuy defale mburu hmm. lenn lu jëm ci dëwlin ak yu mel noonu njëg yooyu dafa nekk njëg yoo xam ni kenn mënu ko yokk te yëgaloo ko état bi ba état bi am noo xam ni eh, joxe na ci eh, accordam hmm. yeneen njëg yi nag dafa nekk njëg yoo xam ni eh, ci commerce bi lañ koy lañ koy déterminer hmm. waaye comme ni nga ko waxee jaaduwul ci benn quartier wala benn koñ nangam di jar cent franc keneen di ko jaayee cent cinquante waaye nag loolu ba économie ame ba léegi moom la ñuy wax phénomène spéculation Mm. spéculation nag ci commerçant lay jóge waa ndax du foofa la ñuy xaar état. ah ndax du foofa la ñuy xaar état nag si taxawaay. waaw maanaam foofu li fa état mën. Mm. mooy fexe ba am un système d'information rapide. Mm. boo xam ni dana ko informer ci marché yi et te defe naa ni kooku ministère du commerce taxawal na ko waaye nag comme li wolof di wax et daanu dajul suuf. Mm-hmm. parce que euh, bu leen fàtte ni ministère du commencé li fa nekk ci agent et euh, dajul Sénégal yëpp. Hmm. Euh, kon nag ci wàllu xarala ak technique ak yenn réformes yi nga xam ne xëy nañu war war nañ ko def pour que mu am un système d'alerte rapide. Hmm. ba nga xam ne fépp fu njëkk yokku e danañ ko gaaw a yëg gaaw ko saafara kooku defe naa ni xëy na ci réforme ak yi nga xam ni. ministère du commerce war na ci gën a góorgóorlu eh, mu gën ci góorgóorlu waaye nag maa ngi rafetlu taxawaay ministère du commerce parce que bi crise bi dooree ba léegi macha allah am nañu taxawaay malgré effectif yi nga xam ni ndaw na ci seen wàll mais aussi malgré yenn eh, xeetu jafe-jafe yi nga xam ni. Mm-hmm. Eh, léeg-léeg dinañ ko jànkonteel. waaye ñu ngi def seen liggéey macha allah ni mu waree moom kañ mbir mi. dañu war d'abord wax commerçant yi seen bopp. Hmm. ñu góorgóorlu ñu gëm yàlla te xam ni eh, nit ki eh, eh, jokk yokk bu jéggi dayoo riba la. Hmm. te te te jullit muy julit muy catholique muy lu mu mënti doon. e defe naa ni riba dañ koy tere te hmm. baaxul ci nit. beneen bi mooy agent état bi nga xam ne ñooy particulièrement ministère du commerce ñu gën a am vigilance gën a fexe ba e yokk moom ak spéculation du mën ñàkk ci commerce. waaye bu ñu xa bu leen leeree ni saa bu ñu defee spéculation yoon dal seen kaw. Hmm. ak fu ñu mën ci nekk. def naa loolu eh, dina dina mën wàññeeku. Hmm. waaye jàpp nga ni daal état moom mesure yi mu waroon a jël jël na ko euh, te mesure la itam yoo xam ni doy na ngir noppal askan wi. waaw waaw ma état yi ma macha allah mesure yi jël na ko parce que mesure yi jël na ko ci wàllu euh, surveiller marché bi jël na ko ci wàllu régulation yenn prix yi mu ko pour que nit ñi bañ a gën a mais aussi sax def na leneen lu nga xam ne moo gën a am doole mooy maanaam peyoor ak euh, koppar yi nga xam ne eh, nit ñaa ngi sénégalais yi liggéey ci public bi ak ci même secteur privé bi ñi ngi koy gagné ak ñi nga xam ne ñooy retraité yi et am na yokk yu am solo yu ñu def ci seen ay payoor yoo xam ne daanaka ba réew mi de amee indépendance ba léegi mënu mësul am mm-hmm. kon nag loolu defe naa ni eh, lu am solo la rax ci dolli nag nguur gi wane na ni e mbir yi ñu jànkoonteel du mën saafara lu dul dañu dem ba am autosuffisance ak sécurité alimentaire ci réew mi nga xam ne li ñuy bay e, dana dana doy ba nga xam ni e am na njëg yoo xam ne sax boo ko bëgg boo ko ko bëggee jaay du mën a nekk parce que e, produit bi dana ni gàññi ci ci ci marché yi mm-hmm. te defe naa ni e, saafara bi dëgg dëgg dëgg moom mooy boobu foofu nag yemul rek ci production parce que si naa ci seen émission yi parce que li ñuy wax système chaîne de valeur ci mm-hmm. wàllu mbay dafa am solo mm-hmm. maanaam da nga war non seulement di produire mais boo produire aussi nga fexe ba perte post récolte yi nga wàññi ko mm-hmm. mais aussi nga fexe ba mbirum li ñuy wax conservation ak conditionnement produit agricoles yi ak sen transformation aussi chaîne de valeur bi yëpp nga accompagner ko ba nga xam ni dana am parce que boo xoolee mbiru soble si li ñuy bay ci soble si doy na pour réew yëpp waaye problème yi posé wu mooy d'abord perte yi dañu bare mooy conditionnement bi ak surtout les techniques de conservation et de planification mhm. ci production bi moom moo moo war a sooxe mhm. kon nag chaîne de valeur bi yëpp dañ ko war jël ci ci wàllu wàllu domaine boobu donc mhm. ci wàllu euh, soo jëlee secteur bu mel na horticulture moom particulièrement mbirum euh, système technique de conditionnement ak de conservation ak planification production bi lu ñu war a bàyyi xel lool la parce que sinon dañuy bàyyi li ñu bàyyi mu ëpp xëy na li ñu soxla. Mm-hmm. waaye nag bu ñu demee ba ci yenn période année bi ñu gis ni léeg-léeg soble dafay ñàkk. wala mu mu ci marché bi. Mm-hmm. te loolu jaaduwul. jaaduwul alors euh, situation réew mi ci wàllu koom-koom tey bu ngeen ko nattee euh, jàpp ngeen ne ñu ngi ci yoon bu baax bi wala fi mu ne ñu ngi ci jafe-jafe. waaw maanaam mu ngi ci mi ngi fi daanaka àddina si toll rek parce que àddina si fi mu nekk nii. Eh, dafa génn ci Covid jànkonteel eh, jafe-jafe yi am diggante Ukraine ak Russie ak eh, jeexital yi mu am ci wàllu addi économie ci àddina si et loolu Sénégal mënu ci mënu ci ñàkk wéy ndax réew mu néew doole la te dafa am nu mu dépendre ci économie mondiale beneen bi mooy politique yi nga xam ni ñu ngi ko doon def particulièrement le plan Sénégal émergent nga xam ni demoon na ba ñu am ay taux de croissance yu weesu ay sept jëm huit pour cent et gis nañ ni ni ko Covid bi xawee euh, ralentir mm-hmm. ak euh, ni impactu euh, kii bi am Ukraine waaye nag économie bi ci fii mu toll mi ngi mi ngi mi ngi résister te yaakaar nañ ni fii ak deux mille vingt trois nga xam ni pétrole bi dinañ ko door a exploiter ak yooyu dégg ngeen taux de croissance yi joxe nga xam ne mi ngi nekk ci diggante huit pour cent di jëm ci ay taux de croissance à deux donc ñu ngi ci am yaakaar bu yàlla dimbalee diggante bi xëy na yeneen safaat yu mel ne Ukraine ak ay Covid ak yi xëy na xëy na amu fi parce que yàlla moom moom moom jamono. Hmm. am na nu mu koy tëralee te nu mu ko tëralee rek foog jaam yi jéem a góorgóorlu seet. Mhm. alors euh, ñu wax ci euh, gouvernement bu bees bi nga xam ne ñu ngi koy xaar mhm. alors gouvernement bu bees bi nga xam ne ñu ngi koy xaar naka lañ ko war a tëggee euh, bu ñu sukkandikoo ci tolluwaay jamono mais aussi li ñu dëgmal 2024 aussi bien élection présidentielle que diggante bi itam yeneen mbir yu bari yoo xam ne xëy na dina soxal réew mi ci wàllu koom-koom surtout naka la ñu war a tëggee gouvernement bi di ñëw waaw gouvernement bi moom defe naa ne gouvernement li tax ñu koy tëgg mooy mu jànkonteel jafe-jafe ak soxla askan wi te fi mu nekk soxla askan wi mooy njëg yu yu seer mooy jafe-jafe dund jafe-jafe ci réew kon nag gouvernement ba war na nekk gouvernement de combat boo xam ni dafa war ñëw pour jublu ci jafe-jafe yooyu kon nag euh, ni ñuy waxee ay gouvernement politique ak yooyu mais dafa war nekk gouvernement boo xam ni dafa war nekk au service des citoyens taxaw ci seen jafe-jafe ba nga xam ni ki ñu war a tànn mu jiite ko e war na mën a doon koo xam ni du ñëw pour jàng koo xam ni am na expérience gouvernement expérience état nga xam ni léegi léegi bu ñëwee rek dafay daal di wéy ci liggéey bi et kooku defe naa mooy fànn bu njëkk bi ma ci gis beneen fànn bi nag mooy kooku aussi tànnee fam dana xaw lëkkaloo tuuti ak Euh, candidature yu président Macky Sall. Hmm. ou déet ci présidentielle bi ñëw parce que bu président naree présenté wu ci élection deux mille vingt quatre yi. defe naa ni eh, loolu aussi dana am nu mu nu mu amee jeexital ci tànneefu premier ministre bi bu fekkee nag narul présenté wu aussi et eh, premier ministre boobu dana nekk koo xam ne xëy na dana gën a laal ci politique bi parce que mën nañ di am yaakaar ni. xëy na kooku mooy nekk xëy na candidat boo xam ne mooy candidat wu euh, wu majorité bi donc euh, man daal jàngat yooyu laa am ci ci ci ci mbirum premier ministre bi. Mm-hmm. mais daal dans tous les cas war na nekk daal gouvernement boo xam ni dafa war taxaw ci jafe-jafe askan yi askan wi xam ne jafe am na waaye gouvernement bi mi ngi seen wet bés bu nekk et mi ngi indi ay solution ci seen ay ay jafe-jafe. bu weesoo gouvernement bi assemblée nationale itam war nañoo taxawal bureau bi ni yëf yi tëggoo gannaaw élection législative yi ban assemblée la ñu mun a xaar. waa bi ñuy xaar daal di ko souhaité mooy eh, def nañu élection et eh, peuple sénégalais nga xam ne moom mooy moo yore kàddu gi eh, gannaaw yàlla suñu borom ci soob coobare yàlla suñu borom et peuple bi def na tànnee fam ba mu tànnee député yi nag tànnu leen pour ñu ñëw fa di xëccoo ay post wala pour ñu nekk fa di xuloo di ŋaayoo wala eh, di jéem fexe ñu bloqué réew mi loolu taxul ñu fal leen dañ leen fal pour que ñu indi ay saafara ci jafe-jafe réew mi ci wàll woowu ñu féete mooy assemblée nationale mooy nag fexe ba réew mi continuer di dox que ñoom ñu def preuve de li ñuy wax responsabilité xam li ñu leen dénk li tax ñu fal leen et ñu jublu ca loolu fexe ba réew mi dox normalement fexe ba e, e, nu mu tuddati jafe-jafe yi askan wi jànkoonteel ñu mën ko saafara mais e, politique rek taxul nit ñi yóbbu leen foofu. te mhm. loolu bu ñu continuer ñu def ko. et askan wi moom Sénégal du ñu wax kenn dara waaye nag bu waxtu jël sa responsabilité jotee en fait dinañ ko jóg li may ñaar daal député yëpp muy ñi bokk ci majorité bi comme ñi bokk ci opposition bi. mooy ñu fexe daal giital intérêt réew mi intérêt askan wi pour que assemblée nationale lu ñuy xaar ci moom mu mën ko jouer. Mhm. jërëjëf euh, monsieur Youssou Diallo njiital club Sénégal émergent nga itam PCA bu Sonacos SA ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi FM tey rafet rafetlu itam waxtaan wi. Euh, jërëjëf.